ma jigéen ne paat <laughs> waaw ajaratu <laughs> tey nag am nañ fi ñaari gan sëriñ Modou Bousso Dieng ak ki nga xamante ne nii moo di président Macky Sall waaye nag dañuy dalal ki nga xamante ne nii moo di sëriñ Modou Bousso Dieng ñu ngi lay nuyu di la dalal si plateau bi. Euh, maa ngi lay fay euh, di la nuyu di nuyu mbokk yi nekk ci plateau bi yëpp euh, hmm. di nuyu waa Touba. wala di nuyu. sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi tànn ak wér eh, def naa yàgg làkk bu ma tubaab nee olof nee olof nee la ñuy wax eh, sama baata tubaab yi rek eh, je suis un peu je suis un peu français hmm. waaw tey olof la ñuy wax français waaw olof je parle en olof di leen nuyu vous les journalistes petit journaliste maa ngi leen di nuyu di leen di leen di di di rafetlu bu baax a baax euh, ci teewaay bi nga xamante ni moom lañ teew ah, jërëjëf. jërëjëf sëñ <laughs> Modou euh, ñoo gis ne Serigne Mbass Abdou Khadre euh, porte parole xalif général des Mourides. Mhm. dafa yëkkati ay kàddu jëm ci violence bi nga xamante ne nii ñu ngi koy faral di gis ak élection yi ñu dëgmal. Mhm. yow naka nga gisee kàddu sëñ Mbass yi. waaw kàddu yu am solo la parce que la violence appelle la violence. mais <laughs> euh, la violence appelle la violence. parce que violence c'est pas bien. rawatina les pays sous-développés comme sunu réew yi. waaw comme sunu réew yi. Euh, la violence. Euh, c'est pas sérieux. donc il faut que ñun ñëpp ñu àndandoo ah. ak élections locales les élections il faut qu'on fasse les élections mais il faut que l'État doit respecter euh, je vous en prie bàyyi ma wax boo déggu tubaab xanaa kon jot euh, je vous en prie nii laa mën a waxee bu leen neexee ma waxee bu bu leen naqaree ma dem sama euh, kenn duma ma yeb ci émission kenn du ma invité moom je ne parle pas pour Touba seulement je parle pour le monde ah, d'accord hmm. je parle pour les Français je parle parce que ma discours c'est un discours international d'accord discours c'est un discours international d'accord je vais une chose Euh, yaa ngi reetaan bu sew bu soof arrêté ta rigolade d'accord te euh, euh, reste calme. d'accord. di wax ni lu mu laaj. <laughs> Hmm? nag nañu bàyyi loolu te wax si leneen. muy euh, euh, mbuuru mi nga xamante ne nii démb. dañoo wax ne yokk nañ ci juróomi dërëm. Euh, ci jamono ji ñu toll ak dëkk bi nu mu méttee nii yow naka nga gisee yokkutee. maa ngi soog xam danga ma yeb. <laughs> invité ma toog nga wax waxu mburu ah, ma léegi yow. Eh, sénégalais non yabaat yabaat da waxal askanu Sénégal mënta weesu. Ah. invité ku mel si sëñ Modou Sy di ko laaj ci mburu ah mais waruma laa laaj mburu liñ ma war a laaj bari na. mais pas mburu man mburu euh, je n'ai rien contre le pain mais je ne parle pas un débat de pain. ah mais mais ci sénégalais yi nga bokk sénégalais yi dañuy ñaxtu li nga xamante ne nii. yokku na xanaa yow la yow miy def mburu ak thon mburu ak ndambe wala mburu Eh, yow chaque jour nga lekk mburu di je vous en prie yow sa njënd mburu ñëpp gis nañ ko comme transporteur mburu <laughs> yaa ngi dégg sa buntu wal fajari ku fi taxaw gis laag ka ni ngay ramasser mburu bi ku bëgg mburu ga bés bu ñu la filmer partagé ko nga yàqu il faut faire très attention waaw merci léegi baax léegi baax na jërëjëf mën ngaa euh, on arrête <laughs> ne me plus de mburu <laughs> waaw nga euh, waxul dara sax dara laaj naa la wax ci mburu laaj naa la si sëñ Bass Abdou wax ni la violence n'est pas bien d'accord ça ah. li mu wax je suis parfaitement d'accord avec lui d'accord loolu kañ leer na Hmm. lan nga bëggaat. Ah, mais demal doo ko xub sëriñ àndal ak yar. <laughs> waaw jërëjëf d'accord dañuy daal di euh, ànd ak nag ki nga xamante ne ni moo di njiitu réew mi muy président Macky Sall moom nag tey daf ñëw set si ñu ñu daal koy bàyyi mu daal di nuyoo moom itam. ma ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu bu baax teewaay bu nga xam ne teew naa ko si plateau bi. Ah. notamment di sant di gërëm. les sénégalais les sénégalaises yi nga xam ne ñoo jël réew bi takk su suma loxo wëlbatiku ne ma doxalal gëmm tax lu euh, kenn doo nga ci xippi muy Sonko muy si des ànd ak ñun ànd ak man si def may def <laughs> d'accord euh, président euh, ñu gis ni vaccin yi bi muy doog a ñëw fii ci Sénégal da nga menacé woon daanaka pratiquement sénégalais yëpp di wax ne képp ko ci ñàkkuwul di nga jël euh, vaccin yi jox ko suñu yeneen nattaango réew yi ñu gis ne que jamono ji nag plus de cent mille vaccins dañ fi des bay waaj a périmé te décembre bi boo moytuwul garab yëpp ñu yàqu léegi yow. depuis lors déggatuma la nga nga wax si. jërëjëf soxna si laaj nga laaj bu am solo jëm si wàllu vaccin yi. 200000 hmm. yàqu na. yoo xamante ni bii mënoon nañ ko may gàmbi hmm. wala ñu jox ko Guinée Bissau te bu ma ko mayee woon ñu naan ma ngay maye. Sénégal kenn xamul lu ñu bëgg. da maye vaccin yi ñu ne wala warta nekk di maye def ci débat jël gars yi ñu toog si télé yi naan pour que raison muy jël sunu xaalis di ko maye jënd nañ ko vacciné wuñ si. mais est-ce que communication bi ngeen ci defoon euh, euh, communication biñ si def def nañ ko si buñ defoon ndànk nag armée laay wàccee ñuy war di ñàkke ah mais parce que non attention parce que ñëw leen ñàkku ngeen lànk seen plateau bi ñan ñoo fi ñàkku ñaar nit dafa ñàkku kii ñàkkuwul te mi ngi nii di kii Alaaji Paate lay dem di ñëw ñaata nit lay wàll <laughs> ah, kii mi ngi nii ñàkkuwul moom it fu mu jëm Cerno Njaay di dem di ñëw ñaata nit la wàll Cerno Njaay moom day sëqat di ñëw di sëqat di dellu loolu yëpp encore une fois il faut ñu delloo si xal yi hmm. ah kii ñàkku na waaye terewul mi ngi covid bi d'accord mais covid bi sonalu ko yow it yow ñàkku nga wala waaw covid naturel yooyu <laughs> covid dafa naturel yow bi moom dafa yàgg ak yow dafa dem ba nga xamante ni vraiment yow moom yow moom est-ce que du yow sax yow yaay cas cas numéro un kan numéro yow foo fàtte foo Iran la. non kii cas numéro un bu dul moom di Iran. yéen kenn si cas numéro en tout cas lu si am solo mooy il faut que sénégalais yi ñàkku. Hmm. wa illaa ma indi armée bi ñu ñàkk leen. parce que ginnaaw bàyyi naa leen ak médecins yi police dàq na leen tëbali leen sonal leen. ngeen ba tey ngeen di résister mais armée bu ñu ñëwee teg la fetal fetal wala ñàkku waaw waaw ñàkk yi bu ñu yàqoo kay nan nga koy vacciner nit ñi nag ñàkku yi yàqoogul quatre cent mille yàqoogul waaw d'accord deux cent mille ñoo yàqu waaw d'accord alors ñu tëjee ak euh, mburu mi ñu yokk te yow yaa ne woon bi ngay ñëw ne carrément di nga fexe ba lépp wàññeeku ba tey ñoo ngi nii ñu xëyati pour nga jën dem jënd mburu joxe deux cent ñu wecci la juróom sax problème la déglu ma mburu ak ni mu mel te niñ ko xamee xam nga ni prix bi war na romb fi mu nekk nii. ah la tax defal ndànk état bi mënul dëkk di kii yow xam nga mburu <laughs> yow tamit xam nga mburu ah dëgg man boo xoolee samay lekk xam ni xam naa mburu wallaay xam nga mburu <laughs> Sall. xam naa mburu xam naa nooy bees. <laughs> alors oh, mburu faas xam naa ko ak mburu mi mburu bu ñu sukkari. mais président xam nga mburu nag. ku xam mburu la nooy bees. nooy bees du tey démb la. sunuy temps nooy bés. waaw léegi. waaw sénégalais yi sonn bay bëgg sonn gi mburu jar na ko. soxna si seetal ma wax la mburu li muy àndal mburu yow xam nga mburu ak mayonnaise mburu ak thon. Ah. mburu ak ñebbe comme ni ñu koy doxalee. yooyu xam nga mburu ak ñebbe mburu ak macaroni mburu ak petit pois. gone gee bëgg mburu ak yow. su xëyee moom ak béti mburu la ñuy bëgg ñoom ñaar bu ñu xëyee mbur la ñuy jëkkërëjëte. jërëjëf bu naan nii ne mburu mi. mburu ak yow de. yow bi mburu manqué da nga feebar yow bi mburu manqué da nga woppoon donc mburu mi juróomi jërëm yi ñu si dool loolu dara am déet sëñ bi. non man dama fi jóge bàyyi mburu tax dama fi jóge yow di nga li gerte gi maa ngi lay mburu boo ko bàyyi li nga man de awma question mais li ma ci mooy yow bu ñàkk yërmande nga ci sam réew yow yokk nga fi ceeb ak diw ak bërki démb ak wax ñuy wax mburu mi yokk taxawaay gi mari sa lay bu ñàkk yërmande président bu ñàkk yërmande nga micro ma jaajëf dama doon wax ñoo daw kii <laughs> ah. ñu ngi leen di jaajëfal man ak sama bi ñoo wàlloon waa <laughs> ñëw di tisóoli rek ceetu ma jigéen ñu jóge fa Thiès ñëpp corona <laughs> ñu naan Thiès ah. cas yi dafa mel ni dafa yokk